féewaloo ba na am ndax ay bisa a ngi nii rek ñi xam ne mooy mbokk quartier ñi ñoom dañoo feetee ci benn di nga xam mooy feetu pak di euh, feetu catholique bu màgg lool ba tax na Sénégal ci li nga xam ne tamit mooy bokk ñu bokk diine gii waaye itam nekk sax dëkk laïque waaye itam nekk nag dëkk boo xam ne laïcité tamit da ko daal di lal ba tax na loolee tekk na loo xam ne mooy ciment bi nga xam ne mooy tax ñu tabaxandoo benn dëkk ñun ñëpp doon benn ci noonee gën a renforcer li nga xam ne mooy consolidation ci unité bii maanaam bennoo bi de ba tax na li koy firndeel mooy sénégalais dem nañ ci jàmm te mañ ga daal di tànn seen njiitu réew te dara xewul ñoom ñëpp danoo tànn ki nga xam ne kat moom moo fi wuti Macky Sall ba tax na itam rek ñoom ci seen xel mu dal ku ci nekk dem na sàkk tànnif naam modèle société boobee nag moom lañ di gën a bëgg a suuxat ci jàmm ak li nga xam mooy seen teeyaay bakkan respecté li nga xam ne kat mooy aaday keneen ak gëmgëmu keneen ba tax na itam rek réconciliation nationale maanaam dajaloo gi ak fexe daal ba askan wi doon benn loolu nag mooy illa ji naka la mën a xoolee daal bokk gis-gis bokk jëmukaay bu ko defee muy góor muy jigéen ku ci nekk daal di ko ci loxoom ngir Sénégal mën ko tabax naam sax dana sori lool ndax yoon bi am na li nga xam kat moo indi gisara waaye tamit naam difficulté yooyu am na waaye Sénégal bu ci nekk daal war na jël responsabilité am xool la nga mooy intérêt réew mi mën ko doxal muy li nga xam ne mooy wàllum euh, diine. ak li nga xam ne mooy wàlluma tarixa wala loo xam ne tamit leneen la ëllëg ak Sénégal ngir ñu mën a avancer ci wàlluma liberte ak progrès loolee daal moom la ñu bëgg